si ñaari saar muy suuratu najmi ak suuratu naasiati doon ay saar yoo xam ne seenu guddaay guddul lool waaye seeni njariñ yaatu lool ci wàllu wërsëg ak wàllu muslaay bu fekkee suuratu najmi moom njëriñ liñ ci indi rek day jëm ci wàllu bayra ak wërsëg moom nag képp koo xam ne bëgg bayra boo xam ne bayra bu yéeme lay doon comme ni ko olof di waxee muy bayra bukki nga xam ne sa mbokki bopp sax da nga leen di yéem képp ku la gis tamit moo xam mu xam la moo xam xamula day am cofeer si yow am yéene jëflanteeg yow soo bindee sooratu najmi aaya boo def def sa tur ak sa sant su sar wa jeexee nga ut suufus xorondom ak ñetti parfum yu bokkul boole kaak moom xooj ko si siwo def ko njaq sangoo ko juróom-ñaari fan incha allahu rabbi suñ borom dina la defal bayra boo xam ne bayra bu yéeme lay doon di nga yéem sax ba yéem say mbokk incha allah waaye bayra nag su àndul ak muslaay du baax moo tax ku ko def ba pare da ngay bind sóoratu naasiaati muy wan naasiaati xarxa moom it soo koy bind aaya boo def da jël benn sant dugal sa da ngay xool li mu aaya yi ni mu nga ut li mu sant yu tool noonu comme soo defee wan naa si aati xarxan daa di def mbàkke daa di def wan naa si taati nassan daa di def faal di ko toppee noonu ba saar wi jeex soo noppee nga boole ka ak ñetti ndox yu bokkul muy ndoxum géej ak ndoxum dex ak ndoxum teen daa di koy def njaq moom it sangoo ko juróom-ñaari fan incha allahu rabbi lu jóge wut si yàlla lu ne rek du mën si yow dara si wàllum pexe noonu ak wàllum cat ak wàllu njabar ak wàllu gu mën di doon rek lépp lu jógewut si yàlla rek incha allah di nga si mucc kon képp ku si bëgg yeneen i leeral wala nga am yeneen i aajo suñ jokkoog yow rek incha allahu rabbi dinañ la ko baaxe te itam aajo jo lu mu mën di doon dinañ la ko saafaraal si kàttanu yàlla ak mbaaxam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu